ok arbitre bi sifflé ci diggante Bada 2 ak Boy Plateau Bada 2 moom la ñu jàkkaar lool. Boy Plateau moom moo ñu wan ginnaaw moo ñu wan ginnaaw Boy. dañuy xeex waaw waaw dañuy rakkay Boy Plateau ak Bada 2 Boy Plateau jël na ko kal na ko kal na ko laay laay la laa waaye eh ku njëkk a suuf arbitre bi nee na jeex na arbitre bi nee na jeex na yëkkati na boxo Boy Plateau Boy Plateau daan na Bada 2 ndax da na ba pare daa. waaw gis nga. arbitre bi arbitre kee la jox victoire bi. daf mais daf mel ne àndoo leen. non dafa juum parce que waa ji Bada mënu koo kaaw ba pare muy déclenché mbot jiitu ba pare yaakaar ne fu mu toll nii waa jee daan. lu ngeen jàpp def recours rek recours rek la ñu mën a def parce que booy bi da koo daan. dañuy gagné Hollande 2-0 bu neexee yàlla. damay seet. non non seetu damay damay wax ak sama ngëm-ngëm damay wax sama yéene damay wax li ma bëgg yàlla nañ dóor Hollande te dañ koy dóor ndax boo yi fubal ñoom ay gaynde lañ xale yu am fulla yu gëm seen bopp yu mën li ñuy def. lu ñu war a indi. 4-4-2. waaw. 4-4-2 ñaata défenseur la. ah. 4 4 la.

muy waykat bu yaru basum xale ay zizam mi ngi laaj ndax kenn ku ci nekk pare nga wala pare woo arbitre bi na arbitre bi na ci diggante Bébé Bismi ak ki nga xamante ne nii mooy Siteu bu Ngor Siteu bu Ngor mooy ne wan gannaaw eh laay laaxi la laa a gaaw a gaaw ñoom ñaar diggante Bébé Bismi Bébé Bismi ngi dóor nañ ko ci day dóor day bu la pee doole tuuti da la koy wan xale la boo xamante ne nii caacaay la ci li muy def Siteu bu Ngor ki ngay bëreel daanaan la defal nag ñoom ñaar watu saako yi ba léegi Siteu bu Ngor ak Bébé Bismi Siteu bu Ngor ak Bébé Bismi ñu ngi xeex jege ngeen saako yi ñu ngi xeex laay laaxee la laa ñaari xale yu ñemente ñu ngay xeex Siteu bu Ngor ki ngay bëreel daanaan la wax naa la ko defal nag Bébé Bismi ba léegi mom moy xex mu ngay wacce xex mi ngi dur mi ngi dur ay wajile Petit lan nga nuy ndil ni ay li lan la ndeysaan Petit production mo nu fi wo bëgg na ko gal laay laaxee la la xale bi bañ na eh, eh. lam la jo xamanteni ni ni lay ñoom ñaar ba léegi ku ci daanu Siteu bu jàpp na waaye Bébé Bismi moom it jàpp na ca yàlla ndeysaan mu ngi koy xëcc bëgg na ko mot bëgg na ko mot da ko laa ilaaha illallaah eh eh xoolal li Siteu def yow xoolal Siteu bu li mu def laa ilaaha illallaah ay Siteu bu Ngor xale bi xale bi da ko gay bàyyi xel xale bi xale bi doy na war wala la xale bi dem da ko japp làmb ju doy na war boobu ba legi ken xamul lu mu demee Siteu bu Ngor ñi nee nañ moo daan way arbitre bi ba legi dafa melni ku d'accordul daf leena bëgg wo ñu bëre wat amna ci ño xamanteni ni nii dafa mel noonu la demee de. noonu la demee arbitre bi bañ na jël am na waaye arbitre bi nee na jël amut kenn mënut dara arbitre salamete tere. te moom na lu ko war. am na lu ko war na dem bëre su ma bëree bind sama recours teg dugal CNG am naa fu ma war a jaar naa fa jaar dem bëre ji. kese ah mais lii lii nu mu demee nii. action si biir la commencé ah. dem ci biti bay bis jox victoire am bañ a yàq làmb ndax kii sol na yërëm ba pare mënatul bëre war mënatul bëre te bu ñibbee ñu aj ko. na jël loxo bébé bis mi ci loxo mu jeex ña ko yaa daan. demal demal. na coow li bari na. Bamba Thiam coow li lenn rek laa la ciy wax xam nga làmb boo ci nekkee bu yem ci reporté combat règlement da nga koy top Bamba Thiam lii xewoon na fi ci Tyson Bombardier est-ce xam nga mbër mu sàqi yaa daan wala dan laa daan am na lu yoon may bu fekkee ne action bi dafa jóge ci biir. jeex ci diggante ñaar saaku shit chute la bu fekké dafa tambalé ci diggante ñaar saaku jeex ci biti lepp mi ngi dépendre ci arbitre bi sifflé cheikh sifflé gi mo leen di bolé mo leen di tàqale Siteu bu Ngor bu dé dafa ñibi té arbitre joxé wuñu verdict suspension mi ngi ko jé xaar ak ñak ci règlement la lay wax bu fekké dafa xaar di ñibi Bébé Bismi des fi dañuy yëkkati loxoom kan mo ñu fi woo woon petit mo ñu fi wo def fi lu am solo bolé fi nak ay ñaari ndaanaan yoo xamante ni nii kenn ku ci nekk da ngaa ñëw ba ci porte bi taxaw kenn moo waroon a jàll kenn ci ñoom waaye dégg nañu ci ay xibaar nee nañu san verdict la def du samay wax nag loolu la gars yi wax mbokk yi mi ngi noonu bébé bis mi woon ak ki nga xamante ni mooy Siteu bu Ngor bëre nañu jël la am na jël amul arbitre bi daal nee na dara amul kon mi ngi noonu mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje nag. ba dimanche ak jàmm incha allah.